suba yow nga bëgg ko ba max ba nawet léegi lan moo tax mu bëgg ko ba max ba nawet lan. Ah, xëy na am bés bu rafet. koor gi ñuy bañ. Mm-hmm. élection yi tay la woon premier tour bu ñu demoon deuxième tour mën ngaa wax ba doo wate ci koor yow. waaw dañuy wate ci koor. Hmm? balaa ñoo processus bi pare parce que 15 jours moo dox suñ diggante koor léegi. Mm-hmm. balaa ñoo dem ba conseil bi di statuer premier tour yi ba ne ba lii mooy résultat yi balaa ñoo campagnat. mën ngaa dem ba quinzième jour koor defe naa wala vingtième wala wala dix-huitième jour ci la ñuy def deuxième deuxième tour bi. ci biir koor la ñuy kon ke dañoo naroon a wate deuxième tour campagne sax ci biir koor campagne ci mhm. koor. loolu lañ naroon a def ci élection bii bu jàlloon. kon donc kay ku mën a wate deuxième tour ci koor ma ne war a war a mën a wate premier tour ci koor. Mhm. loolu ci nekk. dara nekk ci l'an 2000 Abdou Diouf bi muy falu dañoo kori dañoo tabaski ba ca suba sa defe naa wala gannaaw suba sa ñu ñu wate deux jours après la. deuxième tour yi su ma juumul dañoo tabaski ba am ñaari fan defe na kon kay loolu moom amul amul amul amul amul amul amul xel la daal li ñuy wax noonu. Mm-hmm. voilà amul sens mais daal li wóor mooy. Mm-hmm. état bi moo daw. ñoo daw. mais mais ñu gën nag seen gis-gis bu gàtt dañ naan jomaay la ñemewul. yow am nga lecture boobu. déedéet man damaa jàpp ne dañoo mësta am pas-pasu dem. mësuñu am pas-pas parce que dañu parewul wala. waaw man day wax dëgg yàlla jàpp naa ne ñemewul jomaay de waaye. maanaam dem élection la Macky Sall parewul loolu mooy dëgg. daa bëggul daa bëggul daal. bëggul la wàcc. wàcc nguur gi nguur gi. loolu mooy dëgg. mais pourtant wër na tàggatoo fu ne. waaw xam nga. tàggatoo tàggatoo na si sëriñ ji tàggatoo CEDEAO tàggatoo Nations Unies fu ne tàggatoo na. xam nga tàggatoo bu bari. day mel ne dafa am loo lu lu lu des mi ngi mel ne ku ñëw doon la ñaan dépasse mm-hmm. rus la koy wax boo tàggoo ne maa ngi dem waaj naa kon baax na il faut nga ne ko ah kon maa ngi ñëw demal ah, ah kon kon dem ba beneen yoon xanaa maanaam noonu loolu loolu tàggoo yi loolu dong la maanaam gis nga dafa tolloon benn temps Macky Sall il faut mu wax ne déw ma déw ma élection déw ma pour mën a jot ci Sonko mm-hmm. euh, keroog émission bi jàll dégg naa ko mu ni man la deux laay jeexal comprendre que fii ne loola du moom moo ko wax mhm. luwaabee ko wax pour li mu bëgg a wax mu mën koo wax mu tegu il faut mu nangu loolu ba mel na léegi nangu na léegi nag mu teg la ci mais nag dégg léegi ba may bañ mu nax nit ñi naan la deux man jeexal naa léegi kay la deux jeexal naa kon kay la deux damay dem waaye baatub dem doo ko dégg ci waxi Macky Sall xalaatu ko te du ko wax du ko def loolu mooy li wër tàggoo beeg wër-wërloo beeg lépp ci yem. Macky Sall ku ko may bët bu weex fii lay toog du dem. du maa la ko wax. ay ay ñooñam nag yaakaaroo ne bokkuñ ci ñi nga xamante ni moo tax bëggut dem rapidement. Macky Sall nag boo bëggee dégg dëggit ñi ko wër a xamaluñ ko dara. Hmm? waaw yaa leen ci tane yow mii. kooku moom man maa la ko wax yow. ñoom ñi ko wër. yaa ci tani ñëpp. parce que yow journaliste nga yaa ngi jële fee di jële fee gis nga waa Bennoo xamuñu dara ci Macky Sall xamuñu ci dara dañuy yëngaltu nii rek. waaw ah, parce que ba muy wax Macky Sall waxut ak kenn ci woon dara ba muy naan du bokk sax ñoom daf leen bett ñu. Macky Sall waxut ak kenn ba muy naan du bokk léegi nag nga leen gën a soriwaat nag. conseil des ministres yii am na ci yoo xam ne Macky Sall doo ngay wax boo paree jóg dem amul wax ma wax la ko. waaw am na seen benn video bu fuité mhm. bu ma gisoon ci kenn ñoom am na benn bis boo xam ne ci jamono yu yàggul ni dañ doon xeex ci kanamu président sax ñoom seen waaw dinaa la won dinaa la won vidéo bi ay ministre lañ non seetluwuma kanam yi waaye daal xeex nañoo xuloo sa waaye ngi toog nii li ma lay wax nii yàggul parce que comprendre tuñ qu'est-ce qui se passe ñenn ñi dañoo foog ne noonu gi amoon ak Sonko jàpp ne Sonko mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy marché bi nga war a jaar pour am dara. Mm, mm, mm, léegi affaire bi dafa bul bi dafa changé. dafa changé boo xoolee waa Bennoo ñii ñu ngi continuer lancé bi ñu nekkoon di xas Sonko di ko saaga ñii ñu ngi continuer naan na jàmm am ñii ñu ngi continuer naan na Sonko bokk comprendre nga. ñi continuer bu Sonko génnee bokk ma bàyyi Macky Sall maanaam ñoom ñëpp xamatuñ amatuñ amatuñu ligne parce que Macky da leen a brouillé dafa brouillé piste yi. te lii xew dëgg dëgg dëgg ñoom xamuñu ko. lu mu ci bëgg pour brouiller piste lan lan la ci lan la ci wut concrètement. waaw brouiller piste bi xam nga Macky Sall li muy def dafa amatul logique dëgg yàlla li muy def logique gut a toog xam nga yow nekk ak Abdou Latif Coulibaly ci benn nguur. tuumaal magam ger ku mbokkal ngay sa mag di sa kilifa defe naa ñoo bokk ndey ak baay. ndey ak ah? xam nga loolu du logique. Mhm. samp ab candidat ne ko demal wutali ma nguur ba noppi wëlbatikuwaat tuumaal ko ne ko yaa ger xam nga loolu du logique maanaam logique yooyu moo bari Macky Sall li muy def maanaam ne Sonko rebelle la du bokk du bokk matul maanaam boobaak léegi xam nga Sonko kañ la ko éliminé mhm. vingt jours ci ginnaaw la Ousmane Sonko ñàkk a bokk ci élection yi Sénégal mhm. ñaar fukki fan ci ginnaaw quarante weer rek la vingt lañ éliminé Ousmane Sonko. Mhm. tey la la vingt cinq maanaam un mois cinq jours matu ko nga tourné waat ne Sonko mi ma doon rayante trois ans la xeex pour Sonko bañ a bokk ñetti at mars mën ngaa jàpp ne rek sax cinq ans rek parce que deux mille dix neuf la la guerre bi tàmbali deux mille vingt et un ci la xeex bi ci la ci lañ doog a am bunt buñ mën a songe Sonko muy affaire aji Sarr ba le vingt janvier deux mille vingt 2024 ci la Macky Sall yi doog a am ndam mën a xool këyit ñu ko ne éliminé nañ Sonko ci candidat yi léegi le 20 janvier ñaata fan lañ ci teg rek ñu tàmbale na nañ baal nañ Sonko. yàggul ah. <laughs> daanaka mu maanaam Macky Sall dafa xeex ñetti at. Mhm. gañe Sonko maanaam conseil mu ko fukki fan. mi ngi mel ne ndaw soo doon nopp topp ci rey ñëpp xeexal ak ñëpp pendant trois ans di ko ngoro def ci li nga am lépp ba jot ci ndaw si maanaam sëy bi defut fukki fan. lu waral ngay defaat procédure wàcc. lu lu lu waral loolu. ñàkk vision politique. amul vision politique ah ñu bëri dañ jàpp ne vision. képp koo dégg képp koo dégg mu ne Macky man naa politique rek xamal ne kooku xamul politique. Hmm. kon li muy def nii lan la. Macky ay bëgg-bëggam lay def am am am am am ay moyens yu mu ko defee. Hmm. kese mais politique bi ñuy wax politique nii Macky Sall mënu ko parce que man man ba léegi nii li may wër mooy Macky Sall lu tax mu jàpp Sonko. xamoo lu tax mu jàpp ko politiquement yow nan ngay taxawee ni man dematuma ci troisième mandat juillet nga ko wax janvier ci la campagne électorale bi tàmbali maanaam mu nekk six mois net six mois yi sax boo ci dindee processus électoral bi daanaka trois mois lay am juillet nga ko jàpp août septembre octobre parce que dem nañ dem nañ wuti wuti parrainage nga xam ñetti weer nga am nga songu fi mbër mu toll ne Sonko ne da nga koy yóbbu ci prison bi maîtriser ko tas partem man mhm. a wër loolu lay ko ci àdduna bi ba mu leer ba noppi nga boole ci campagnal sab candidat fal ko ma ki mënut loolu ku maanaam ku am xel rek yow ku la ci tàggu woon nga ne ko loolu xaju fi léegi yow boo demee yàgg ko ngeen xeex boo ko gañee doo ko jariñoo kanee na koy jariñoo boo ko gañee wut coow li topp la lan moo nekkoon solution bi kon. bàyyi ko apaisement bii muy woote. Hmm. ba mu nee du def troisième mandat ba mu xëyee ci suba sa la waroon a wóolu sonk pour apaiser àdduna bépp ay jóg na ko demal wuy ji. Hmm. bu demee bu ko deexee te jóg moom mer ma suba ba ngoon lu xewate ñu ne ñoo ko waxtaanee. administre lépp ñu ne Macky daal comme defu troisième mandat ta bëgg na Sonko bàyyi na ñëpp mu ngi ci jàmm ah wax dëgg yàlla lu ko waaye waxati yaa ko tooñ mu defee élection. Mhm. su boobaa Macky Sall bu xëyoon bind ci Facebook bi ne sama bopp day metti nga gis ñëpp seen bopp metti lu mu mas a def ci àdduna dañ koy fàtte mais Macky Sall dafa seddal ne defuma troisième mandat mhm. teguñu ci weer mu jékki-jékki yëng jugaat jàppi Sonko dugg ci xeex boo xam ne maanaam politiquement amul amul amul rentabilité bu mu koy indil loolu mooy loolu mooy moom léegi nag xeex boobu nag moo ko topp nii